muy tawfeex ju leen yàlla suñu borom defal ak dimbali gi leen Serigne dimbali ci ndimbal it la ci jiitu mooy ne gim ne ci seen biir Serigne Touba it wane xar baax ci seen biir ndax ñoo xam ne ña ci ëpp mën nga ne langue français lañ jàng. tey bu ñu yëkkatee xaside yi mënoo ko xam ne ñu nekk ci daara bi wala ñu dàq leen ko Serigne Saliou daana ko wax daana wax ne li gën a yéeme ci ñoom de daaj boo leen jox ne royloo leen ko danañ ko danañ ko daaj ba dàq ko jàng ko ko ko ko andi woon loolu di tawfeex ju rëy yoo xam ne mboolem ñi fi ma nekkal Serigne Touba ñëpp tàmbalee ko ci Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne ci nekkam ngeen sosu mu tegoon leen ci yoon wanoon leen fi ngeen war a jaar te wàccu leen ku mën a gëne Cheikh Mouhamadou Mountakha mii nag yàlla suñu borom def mu nekkoon ci seen biir daa wax ne da leen a gëmewut te ne ba na gën a muy gën a feeñ waxtu ne àgg na ci fu mu toll rek bu soñoon bu xëyee gis leen bu ngoonee mu gis leen loolu lépp nag nongul Serigne Touba la Serigne Saliou mas na leen ko wax bi ngeen di door a ñëw ci moom ci nekk ko sëriñ Abdul Xaadir dégg na guddi ngeen di yëkkati jàng mu doxal tànkam ndànk baa si diglu leen ba ngeen jeexal mu yéemu ci Sëriñ Tuubaa ak xemmem ko ba yàlla def mu agsi ci loxoom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ginnaawam itam noonu la àndee ak yéen ba mujj lépp lu ñëw ci moom rek yéene ko ci gaaw doy ba Cheikh Sidi Muxtaar itam ñëw ñu ma koy seere waxtoo ne daa wax ne li ma gën a yéem ci yéen mooy way gi mooy foo leen fekk rek boo boo liggéey fa leen di fekkaat Cheikh Mouhamadou Mountakha nag yàlla dafa def moom dafa day dafa day seen day day suñ sëriñ waaye di seen jëwriñ ne ci seen biir bu njëkk mu doon Sëriñ Tuubaa te bu nekkee Sëriñ Tuubaa it mu wane ko ci lépp. kon nag loolu daanaka dara luñ ci mën a seere waat sax amut ndax lu ne fàng na ba adduna sépp xam si si Abdoul daan wax lu fàng deesu koon ko ami bët seen njàng mi itam di tawféex ju rëy joo xam ne kerew ca première safar ba ca njàng mu njëkk ma yàlla defal na ma feex fii laa bàyyi ko coox tus ba dem fa dillu ko ba mu jeex ba yàlla def tey jiitam mooy bis ma mujj yendu fii ci màggat gi ngir war a dallu ji ay fan duggaat ci liggéey bi mu tëjiwaat ko seen njàng mi kon amul dara luñ ci mën a waxaat loolu sant yàlla ak Sëriñ Tuubaa ndax mubaarakul ibtidaa yi may munul intihaa yi la ndax lii lañ doon ñaan xitaamuhu miskun la it kon ñu ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu yàgg ko ànd bu baax te lépp te dara bañ ciy génn sëñ bi lépp rek jëm ci sëñ sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa gàttanuñ ci gàttanuñ ci nongul ñu ko bakkan bañ cee dugg àdduna bañ cee dugg bànneex bañ cee dugg te yéen itam yàlla ngeen àgg fi ngeen jëm ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na leen ne maa ngi jàkkaarloo ak yéen yéen a ngi jëm ci dëkk boo xam bu ngeen fa àggee ku leen fekk ku bu ngeen fa àggee ku leen fekku dana leen ci ñee wax leen la tax la ngeen war a def bu leen gestu bu leen diglu kon nag mel neen agsi ngeen fa kon na ngeen xam ne doxo yi lépp baax na lépp rafet na dara sikku ci wane ngeen Sëriñ Tuubaa ci ni ngeen ko war a wanee lépp di ko dund guddeeg bëccëg kon yàlla na yàgg rek képp ku leen gis rek xam na ndamul yoonu ngeen Cheikh Mouhamadou Mountakha waxtu ne day seere ne soldaar yi Sëriñ Tuubaa soldaar nag mooy koo xam ne njiitam rek lay diglu amatu bëgg amatu bañ day mel ne malaayika yi rek malaayika yi rek laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaroon kon nag lii lépp tawféex jox ne Sëriñ Tuubaa defal na leen ko ba ci yàlla def bi sëriñ bi demee ba am yëg-yëgub boole daar yëpp def ko muy jenn ca nam sosoo woon keroog bis bi mu leen di dajale damaa woo ba mu ñëw moo wax ma yéene jim ci am ne ma lépp nag bu noppee yoo lay nopp yoo lay noppal yoo la yoo rek laa bëgg dimbale ndax liggéey bi ni ma ko ni ma ko bëggee bu noppee dana yomb ci yow ndax ñoo ay soldaar lañu waxaat ma ko noonu la ma ko waxaat waxewaat ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa rek lépp lu mu bëgg rek yàlla da koy day day dëppoog coobare suñu borom yaquudu kullu ma ahwa bila talabin fu bari la ko sëriñ bi jëfandikoo balaa bëgg dara sax suñu borom defal ko kon na leen wóor ne boole gii leen sëriñ bi boolewaat fa allafa bayna xulubikum fa asbahatum bi nihmatihi na rek wa kuntum ala shafa xufratin min annaari fa anqadakum minha moom lay def Cheikh Mamadou Mountakha defal kon suñ Tuubaa ko doon liggéeyloo ci yéen mu tabbi ci yaa rabbi ij'alil ma maha fi xisnika alxasini wa shamlaj maha kon ñu ngi sant Sëriñ bu baax di ñaanal seen jëwri ja Sëriñ Aatu ndax ku dégg ñaa ngi war a saxel dem ci moom ndax pëstéefam ak ak dogoom ak bëggum Serigne Touba ba diiru bu fi nekk kenn mënutoon a xalaat sax ginnaawam ne day bi dana wéy nam doon doxe waaye nag loolu day wane ne mbirum Serigne Touba la mbirum Serigne Touba kenn doonu ci dara ku nekk lam la ci def loo ak fam la ci yem loo ndax nëgg ni tey màggat gi bi mu jàllee mel na nu ëpp nam mu nam nam daa mel weesu na ci fànn yëpp nag lu ngeen daa defe def ngeen lu ko ëpp kon loolu wane na ne Sëriñ Tuubaa nangu na ko kon nag ñii la demee ba bis fee ji ba rek. wasalaamaaleykum ñu ngi sant sëñ Yuusu bu baax a baax nag ndax moom dama ko daa tooñ boo suñu atoom fi wax naa ko ci saal bi ba tàyyi ci ñun topp ci ginnaawam dama ko daa wax naa ko malaayika ga ndax du sonn du jàmbat du toqi te loo ko waxit day jug rek ne fexe fexe nu mu mën waaye du gàntal te loolu jafe-jafe nit boo seqoom liggéey loo fukki at ak nangam te mosoo ko wax dara mu yox yoxe mosoo ko wax dara mu dengi dengi loolu ndimbalu yàlla ak pàggatu Sëñ Tuubaa kon ñu ngi leen di sant bu baax di Sëñ Ablaay yéen itam ñu ngi leen di gërëm bu baax seen pësteef ak seen njiit ak seen taxawaay ndax xaside moom mooy liggéeyu Sëñ Tuubaa ku yàlla defal tawfeex nag. nga bokk ci ñi jiitu boo ci jiituwut loolu ndimbal suñ Tuubaa la ngay yëkkati sëñ Saliou dégg ba tey moo tax ma lay laajaat kañ nga jiital kuréel ma may fàttalikuwaat kañ nga jiitu kuréel bi muy yëkkati ba tey sëñ Saliou dégg muy yëkkati Cheikh Mouhamadou Lamine Bara dégg muy yëkkati Cheikh Sidi Moukhtar dégg ba tey muy yëkkati Cheikh Mouhamadou Mountakha dégg ba tey loolu doy na barkeelu moo tax ku koy dégg itam ci amub yëg danga da nga ci ne lii